fëggal sa tànk Mor Kang yor na nen mbokk yi dimanche 22 décembre 2019 i Diom Iba Mar Diop arbitre bi woo na leen journée Dieye production moo ñu fi indi combat spécial bi Mor Kang moo leen féete ndijoor Aw Soddu moo leen féete càmmoñ ngemboo ngemb bu ñuul bi Mor Kang Kang ngemboo ngemb lu weex tent bopp bi arbitre baa nga wax ñoom mu ngi wax ak mbëri laaj na ay jugeem juge yi nañ pare na arbitre bi laaj na Mor Kang Kang nee na pare na laaj na Osodu arbitre bi na mbokk yi dimanche 22 décembre 2019 Kang Kang ah Osodu mbokk yi Osodu moo leen féete ndijoor moo leen féete càmmoñ Kang Kang moo leen ndijoor ña ngay ña ngay demee wet ñoom ñaar ñu ngi xoolante ci wet ñu ngi xoolante ci bët oo soddu Mor Kanka oo saan ndeysaan moo leen féete ngemb lu ñuul li Mor ngeen jàkkaar lool noonu ñaari xale yu am taxawaay ndeysaan oo soddu Moussa Ndoye moo ko indi moo woon ginnaaw noonu yaraax la nekk ndeysaan mooy bërëg Mor Kankang ña ngay leewaatoo dagg nañ géew bi ba mu yàgg demaat ñu ngi ñëwee wet sëñ Basiru borom mbég meg bi ñaari mbër yee ngi ñëwoo suñu wet au soddu Mor Kankang ndaysaan au soddu de sëñ Bas mooy ndox bu tàng Mor Kankang xanaa fu mu dóor buntu feeñ waaw kan kan de euh, ab dëkk la xaw ma nag kan-kan lan la parce que damay faral di dégg rajo kan-kan aussi kan-kan xaw ma lan la mais kan-kan moom ab dëkk la. eau chaude aussi wax nga ko mooy ndox mu tàng jër mais li ci am ba des mooy jiili ay xale yu toll nii bu ñu waree bëre combat spécial ci journée bu toll nii da lay won ne ñoom ñaar ay mbërëntaan lañ te aussi dégg nga euh, bi ñu présenté. ñaari mbëri li ñu indi ci ay nit ci public euh, ci stade bi da xam ne topp ñu leen rek parce que dañoo yaafus wala leneen ak leneen mais ay mbërëntaan la ñu bàyyi ji lii ay mbërëntaan lañ oo soddu moor kànkang mbokk yi ña ngay lewaatoo ña ngay xoolante ci bët ñoom ñaar moor kànkang mépp na oo soddu di ko déglu làmb <laughs> arbitre bi attana anna Mor Kang Kang au Sodou yi Mor Kang Kang dox ci kawam au Sodou koy déglu au Sodou nga Mor Kang Kang dox ndànk di teg tànk di dox ci kaw au Sodou lu ñu nar dañuy xeex wala dañuy bëre au Sodou Mor Kang Kang ndeysaan lamba ngoog mbokk yi safoo wasaare lamb yéen ñëpp ñu leen di bége di leen wax ni seen mbégte rek mooy suñu bànneex ndaysaan revue de presse bu neex wasaare lamb rek nga ko mën a amee xeex nañ nday ndaysaan xeex nañ ñoom ñaar ndaysaan Mor Kankan ña ngay na Mor Kankan door na au sud ma ngay sàmm tànk yi Mor Kang Kang ma ngay sànni Osodu ak Mor Kang Kang Mor Kang Kang Osodu daw na jël ko jàpp na ko Osodu jàpp na ko ndenga ñente nañ Osodu Mor Kang Kang ndeysaan ñaari xale yi jàppante nañ Osodu Mor Kang Kang ndeysaan xale yaa ngay dégg ay supporteurs am nee nañ tek ñoom ñaari mbëri Mor Kanka Eusoudou ay ëñ na ko bañ na Eusoudou ëñ na ko mu bañ ndeysaan ña nga jàppante ñaari xale yu mën bëre lañ boo gisee stratégie yi ñuy bëree nga xam ne ñoom ñaar ku ci nekk bugul lu dul morom def erreur ndeysaan Moussa Ndoye problème la indi mooy bëre mooy Mor Kanka Osodu ndeysaan moom la indi moom Moussa Ndoye Osodu moo ne écurie Yaraax ndeysaan xale bu mën a bëre la waaye Osodu yaa ngi bëree gone gu am jom ndeysaan mooy Mor Kanka ñoom ñaar ñu nga ca ba tey Osodu Mor Kanka faqan o sod Mor Kanka ña ngay door ay uppercut ci suuf ñoom ñaar ku ne sànni na o sod Mor Kanka ma ngay door ci suuf ma ngay door kaawo mbaa kaawo du am o sod ngay door ci suuf ee lamb ay waay door yi metti waay ay waay door yi yéene ma ko sama waajo sëñ waay au sud du Mor Kanka ndeysaan xool na ma moom yàgg na ma jiili dama bëgg a ci làmb moom sëñ Bas ma ko sëñ Bas te nga yem ci saraax ci biir kër gi saraax ci xeexoo làmb jël na au sud Mor Kanka ña jàppante mbaa chute am ña dama wet na ko tël na tànk ba daan na ko Mor Kanka daan na ko jël bu rëy ndeysaan oh ndeysaan maa ragal lii xooloo oo oh, soddu li mu indi sëñ Baskaay sëñ Baskaay oo oh, sodda ngoog xale baa neex ndama leer ndama wóor